tey ci suba dañ ñoo yëgal ne euh, dafa am euh, nit ku ñu fekk mu teud xamuñu exactement lan la euh, bi mu amé ñu woté wa sapeur ñu ñëw woo police ñu ñëw pour sécuriser les lieux waye mu am ben retard bu ndaw bu ñu noté avec peut-être les services d'hygiène waye comme ni ngeen ko xamé fi mu tollu ci contexte bi ni service yoy dañu nekkoon fenen doon mener ben opération lolu mo waral peut-être retard bobu waye li ci ëpp solo rek ñu japp né bala ñu doon laal li nga xamante ne euh, euh, nit koku il fallait que ñu jël toutes les dispositions de de sécurité pour que ñu xol exactement nan lañ koy nan lañ koy nan lañ koy jëlé euh, lolu amna yobbu nañ ko maintenant danañu saytu euh, comme ni ngeen ko xamé compte tenu du contexte xol exactement euh, mbir que euh, lan la quoi. si jamono jëm bu aussi demb bi ngeen vous ben ndaje. que hmm. am yéne vu ak vous marché central da ko bëgg du tejj vu ci comme ni ko euh, barki fi communautaire jeune talibé la ñu jël décision jël décision marché bi ñaari fan samedi ak dimanche suba ci samedi bi inshallah allah danañu nettoyer marché bi euh, buñ ci jógee dimanche ñu am ben activité de saupoudrage et de désinfection manam prophylaxie avec les services d'hygiène lolu mo waral tëj bi ñu pomper ko waaw ñu pomper ko donc pomper ko parce que euh, nañu njort ne xeyna euh, doomu jàngoro jooju euh, mi ngi ci marché bi ndax nak loolu moo ñuy muccal loolu moo ñuy musal ci ci jàngoro jooju. dénkaane yi lan la. dénkaane yi mooy ñu bañ a fàtte rek masque yi masque yi ñu koy sol nekk na benn mesure boo xamante ne autorités yi euh, jël nañ ko digal nañu ko loolu benn la bi ci des ñu bañ a fàtte aussi raxasu ndox ak saabu les gestes barrières également ñu koy ñu koy observer képp koo xamante ne également du farata mën ngaa toog sa kër bañ a génn.